ndeysaan xoolal ba Youssou Ndour Youssou ngi noonu ndeysaan gars yi ànd ak ki nga xamante moom mooy Gakou 2 l'adversaire de Boulal eh cey combat bi cey waa Alburax ha waa baax na ndeysaan xoolal ma Lamine Golo Lamine Golo ngi noonu ngi noonu mais lii dafa garaaw dafa boo xoolee ñaari gone géej waaye ñoom ñoo bokk même oto ñëw. waaw waaw yàq essence yàq essence baaxul. jaru ko jaru ko yàq essence baaxul boo leen bokkee fi ngeen di def rek ñëw. ndeysaan defee. yàq baaxul ah, yooyu noonu ñëpp mënul ñàkk. mais xale yi duñu saltel duñu tilimal laay. bu ko defee ñu ñëw dugg la signature wax ku nekk ak sa adversaire. après bu ko defee ñu dem. mais tamit xale mu digal. <laughs> digal ngi si forme de. waaye tamit. waaw tamit mi ngi si de <laughs> ah <laughs> ndigal a ngi noonu ak a dégg ndigal. <laughs> ndigal a ngi noonu. daa dégg ndigal ndigal. mu dégg ndigal mënul ñàkk. day wa aca gàkku gàkku gi noonu mais gàkku may ñu ko kii kan la nii le grand promoteur le grand promoteur a ngi noonu borom alburax a ngi noonu de wala ma la ko mu jàll ndeysaan gaay aw kay baay digal a ngi noonu ñu dem salaamaaleykum waaw mais coach coach nice vas-y vas-y ngeen bëgg a dégg defal laa si digal nuyu nan la ça va sant nañu baax sant baax yow am na rek dem bala ñu wax am yàlla booy jégal waaw parce que soo préparé ko de semaine da ngay sëree concentré wu pour wàcc li ngay war def parce que yaa ngi ci dernier réglage yi ñu dernier réglage yooyu pare nañ pare nañ waaj nañ lépp waa nañ booy bi suuf lañ dagg jéngi dox si kawam jëlee ko fi quoi booy bi suuf dox si kawam jëlee ko fi allah duma ko daan ko mu gaaw ah c'est non lu mu def daanu maa mën maa bu doole waaw du man ak moom quoi maa mën maa ëpp doole quoi xam nga lamb dañoo disé quoi gis nga ak costu nii tout est possible. armée nga am armée armée. armée maa ko mën armée benn ngànnaay amatu fa armée bi du dara armée bi léegi mooy loolu. armée bi mooy loolu quoi non armée bi mooy loolu du dërëm. ndeysaan. kay bàyyi ndeysaan. Agora brasa